مهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفضل خير جنة لمن نظمه di kuréel gu xalif général des mu cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke taxawal lëkkale ci commune bu Touba daara xisbu tarxiya ak Touba ca kanam ngir ñu taxawu nag mboole mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ci dëkk bu sell bi di Touba. bi yàlla suñu borom dogalee euh, ndox mi jéggi dayoo Touba ba indi ay lor ba ñu recensé lu war a tolloog onze mille cinq cent familles yoo xamante ne ñii génn nañ seen i kër ñii seen i miir daanu na ñii seeni i fosse euh, affaissé wu na ñii tamit. am nañ sax ay ñoo am ay gaañu gaañu am na ñoo xam ne ci seeni toit la ñuy yéeg di togg wala di mën a sax euh, jàppale seenu njaboot am ñoo xam ne seeni dund it ñàkk nañ ko loolu bi mu amee moom moo jëkk jëf yëkkati deux cent millions sos ab kuréel ndax xam na ne euh, boo gisee ñuy wax les grandes victoires toujours c'est les grands ensembles ah qui les tey jii dañoo toll foo xam ne doo beru ne Touba ca kanam mu nga ne le Hizbut Tarqiyyah mu nga ne commune de Touba mu nga ne la ku ci ne doon acteur de développement sëñ bi nag boole leen créer benn kuréel boo xamante ne gérer lii moo ko tax a jóg xam na ne empleur bi moo laaj loolu kon daf ko tuddee junnatun li man nazamaho junnatun nag bouclier la maanaam lu war a ñëw doon gàllankoor wala mu yàq moom wàllu baatin bi sëñ Touba saytu na ko waaye saayir si am nañ ci sunu wàll waaye nag nañu xam ne gaa ngi ci terrain bi ànd ko ak les services compétent de l'État ndax lii euh, wàllu assainissement du loo xamante ne bon volonté rek day jóg mel ni ku isole action am déedéet moo tax le gouverneur ak lépp lu jëm ci euh, commandement territorial dañ ko ànd ak ñoom ànd gi ñu ko ànd ak ñoom ñoo ngi liggéey ci anam yëpp li ci jiitu mooy recensement bi ndax loolu dadul compétence boo xamante ne dañ ko war a woyafal ba ne am na sax ñoo xam ne dañ jàpp ne bindu gi mooy da ñëw kër sëñ Touba gi bindu Touba gépp xajuñu fii ngir bindu déedéet euh, ñi doon def recensement bi it firiwul ne état bi rek moo ko def ñun dañoo jël ay équipe boole kook ñoom ngir ànd ko euh, te it mu doon loo xam ne chef de village yi ak chef de quartier yi ñoom lañ koy àndal ngir ñu mën koo def ñoom ñoo recensé ba trouver onze mille cinq cent familles lu ci ne it bu ñuy jóg di séddale dañuy dem ba gis. loo xam ne day confirmer wala mu infirmer li nga xam ne mooy li agent yi doon def recensement liñ ñu def kon nañu xam ne liggéey bu sérieux la. la jëkk ca seeni jéego mooy nag dajale ay ndimbal ngir mën a wallu nag askan woo wilee ka ca jiitu te joxe ca ndigal mooy cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. distribution bi itam wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla ndax cheikh moom lu Mountakha moo jëkk yëkkati deux cent millions indi ko waaye taalibe yi kenn taxawul. kon ñu ngi indi loo xamante ne buñ ko booleeg jëfi sëriñ bi euh, dina mën a sori liñ njëkk xayma rek ci euh, onze mille cinq cent ménages yooyu lañ leen di jox nga xam ne minimum dina ci am muy boo jëlee ñaari saaku ceeb jël lu mel ni euh, bidongu diw jël tamit limu ay koppar yoo xam ne dinañ la ko jox ndàmpaay jàppalee la ko loolu buñ ko xoolee ñun daanaka jege nañ sept cent million yoo xamante ne équipe bu sociale tàmbali nañ seenu liggéey waaye ñu ngi ñaan rek ñu yombalal leen ko te xam ne euh, du indemnisation junnatun liman nazamahu fasantikoo ci ay bànqaas yu yaatu li ëpp ci seenub liggéey nag ñu daal di koy tàmbali ci mbooleem gox yi nga xam ne nii mbënd ma da koo laal lii nag état du Sénégal lañ ko àndal ngir mën koo amee ni ko cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké santaane. dañ ci ànd ak état état aussi dafa amul doxin ndax indonation maanaam DCPI yi dafa ñëw ONAS ñëw ci eh, ànd ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet donc ñu ànd liggéey bi ak sapeur pompier muy service technique de l'état yi euh, bi ñëwee ñu daje ñoom it def benn programme ci lépp li nga xam ne euh, service de l'état la. ak euh, te lu jëm ci technicité ñu ànd ko ak ñoom sa bu ñu yendoo lu ñu yendoo ñun mi ngi ci ñoom ñoom lu ñu yendoo ñu ngi ci ñun ba ci commission yi nga xam ne sax administration da koo sàkk dañoo jël ay membre ci ci gur ci kuréel bi ñu dugg ci ñoom it ñu ñu ànd ak ñoom ci terrain bi ku nekk gis nañ ni ñu ànd ci terrain bi muy ONAS muy sapeur pompier muy DCP ak ñi nga xam ne ñëw nañ te bokk ci yeneen gox di ñu jàppale si muy ku mel ni EFAS eh, yëpp dañ ko boole muy benn doole muy benn programme. donte junnatul liman nazamahu ñu ngi amal liggéey yu am solo moo xam ci xayma mboolem ñi nga xam ne ni dañoo loru ci mbënd mi dem seeni kër ngir taxawu leen ci seeni jafe-jafe moo xam manqal leen ndox mi wala toxal leen ci seeni kër yóbbu leen feneen géey bu am solo boobu itam nguurug Sénégal. seetaanu leen ci benn yoon. gis nga aussi ndimbal yi nga xam ne jaar na ci état état def na lim ci war a def mais ndimbal yi nga xam ne dafa jaar ci état ñu yóbbu ko ci ministère la femme euh, maanaam ministère de solidarité dañ koo jëlaat indi ko ci euh, ci ci ci ci ci équipe bi lépp ñu ànd ko suñu polo bi ñu gën a metti daal bi nga xam ne xaw na jaaxal fi mu nekk nii mooy ngiraaneen fetto waaw parce que déversoir bi fu ñuy jé mooy suñ problème buñ jëlee ndox mi fuñ koy yóbbu ndax diggante bi mën na trois kilomètres quatre kilomètres ah, te euh, amul amagul réseau te foofu am nañ jafe-jafe ba dem tey ci suba état ak kuréel gi yëpp fa la ñu xëy ak ña nga xam ne ñoo fa dëkk ñuy xool ban solution la ñuy def ñëw nañ léegi nii pour ñu xool nan la ñuy def ban solution la ñuy ànd ak service de technique de l'état yi donc ak gouverneur ak préfet sous-préfet ak ONAS ba ban solution lañ ciy jël ci loolu collaboration bu rafet lañ am ànd bu rafet lañ am ñu aussi liñ indi yëpp moyens yiñ indi yëpp ak yi nga xam ne participants yi indi nañ ko ak taalibe yi dañ ko boole moo loolu moo tax sax ñu mën cee gaaw a di ci génne nii jeexul nag wàññikuwul it nag ndax tànk booy onze mille cinq cent et quelque euh, famille su fekkee ne du amaguñu ci sax lu mat cinq mille donc nga xam ne lu mu néew ne si nañ ay six mille et quelque quartier bu mel ni ngaraaneen ko dem xool na mel ak fetto nga xam ne problème bi des na waaye nag technique ñi ci xool ba solution technique yi ñi ngi xool nan la ñuy def ba jàppale leen maanaam kuréel gi ak état guddi ak bëccëg suba ngoon ñu ngi xool ban solution la ñu def ba nit ñi am jàmm waaye ba nga xam ne problème bi waxuma nii mu amee mais bu ëllëgee bu amee du demee nii loolu yëpp ñu ngi ci di ko xalaat. liggéeyub junnatun liman nazamahu fasantikoo ci ay wànqaas bokk na ci la commission technique ñu daal di def seen kem kàttan gannaaw bi amee ay jumtukaay yu mucc ayib boole ko seen xam-xam. taw bii nga xam ne <clears throat> wàcc na ci dëkk bi impact bi mu def ñaare sax ñi nga xam ne laalu leen wala nekkuñ ci dëkk bi mën nañ ko bañ a xamee dëgg-dëgg impact bi ni mu toll balaa nga koy xam rek da ngay wàcc ci terrain bi dugg ci gox yi nga xam ne ñoo gën a impacté bari na lool lool lool léegi nag ci biir sunub liggéey ñun mooy nemmiku gox yooyu gox yooyu nag. yi nga xam ne jotoon nañ ko cee xam expérience bi nga xam ne amoon nañ ko ci biir Touba kanam ak expérience bi nga xam ne ñi bokk ci kuréel gi ñëpp nañ ko moom la commission technique am moom la jël teg ko ci table ji te mooy di déplacé wu di dem ci gox yooyu ñu xam ak ñi nga xam ne dañuy ñëw fii ci kër sëñ Touba gi di fi bindu di déclaré ne seen koñ wala seen kër wala seeni gox dafa am jafe-jafe bu ko defee nag noonu la ñu organisé woo am ay équipe yoo xam ne ñoom ñooy déplacé wu dem sur le terrain yóbbaale ay moto pompe parce que li ëpp ci li ñuy def nii pour génnee ndox mi système pompage la donte am na ay camions hydrocureurs ci yenn zones yi dinañ utiliser yeneen technique tamit mooy drainer jéem a tàllal pour ndox mi mën a déplacer wu dem dugg ci caniveau yi mu nekk liggéey bu bu bu rëy rëy rëy boo xam ne am na tuuti délicatesse parce que euh, moment bii ñu toll réseau assainissement bi fi nekk dafa saturé dafa saturé déversoir yi aussi dañoo saturé loolu moo tax ci régulation la ñuy dox dañuy réguler bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy dee pompé dañuy liggéey en parfaite collaboration ak ONAS parce que ñoom ñooy yor exploitation réseau bi ñooy xam actuellement nii ndax euh, saturé na laaj na yenn zones yi ñu arrêté pompe yi bàyyi ba ci kanam tuuti ba mu xaw a féex ñu doog a taalaat euh, grille avaloir yi ak exutoire yi nga xam ne ci la ñuy dugal tamit da ci am yoo xam ne boo ko songee ak puissance pompe yu mag mën na ko bañ a attan loolu ay liggéey yoo xam ne dañ koy def de manière technique ànd ko ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a yi nga xam ne moom la junnatun li mën na dama teg ci terrain bi ñuy def liggéey yu am am solo nga xam ne chaque jour bu ñu xëyee dañuy déployer équipe yi ñu nekk partout ci bërëb yi nga xam ne am na jafe-jafe ndox donte nag couverture bi ba léegi des na ndax ba léegi am na ci yenn quartier yoo xam ne euh, demaguñ fa. ginnaaw liggéey bu am solo boo xam ne nii def nañ ko. ci ñaari ay bés waa technique ñu ngi soññewaat bu baax a baax ñii di nguur gi lu jëm ci wàllum kaaraange ak wér-gi-yaram ñeel bërëb yooyu nga xam ne nii yenn yi ndox ma ña ngi fa desandi yeneen yi sax ndox ma jóge na fa waaye nag ñu dëkkaat ko dana des lool. da ne gouvernement bi lay soxal à travers autorités local yi parce que am na lu protection civile ñoom seen warteef mooy dem ci terrain bi xool kër yi nga xam ne ndox mi impacté na ko ndax yi baax na ba tey ngir nit man faa nekk wala am na risque loolu liggéeyu protection civile la am na ci seen biir a génie civil ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu bâtiment ñoom ñooy war a xool loolu beneen bi ci def tamit dafa ba tey jëm ci ba ci wàllu euh, structure euh, yi ak ñi nga xam ne ñoo war wàllu ci domaine boobu te jàpp ne ñi ngi ciy liggéey parce que junnatun liman nazama dafay liggéey en parfaite collaboration ak euh, autorité locale yi nga xam ne ñoo fi nekk te boo ko waxee mën ngaa jiital sous préfet avant nga dem ci préfet ak gouverneur te ñoom am nañ ay commission yoo xam ne ñu ngi liggéey ci domaine boobu li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu remise en état loolu ci commission technique bi junnatul li man nazama aju te mooy ab ab ab gox boo fa demee fexe ba génnee ndox mi euh, fexe ba ba ba ba ndox mi dañ ba mën a récupérer waat quartier bi la cee des mooy drainer ko fexe ba tàllalaat ko ba dem ak dikk mën a jàppandi parce que ndox fu mu fu mu taajalu yàgg même bu ndox mi dañee dafay des buu day am ban bu fa nekk déplacé ak tànk sax du fa yomb mhm. remise en état yooyu commission technique ñi ngi ciy xel toujours quartier bu ñu paree war nañ ko faa def ci quartier quartier yi nag ni ma ko waxee léegi ndox yi dafa bari de telle sorte que mën ngaa pomper sax léeg-léeg ba jàpp ne jeex na alors que def na ay postes yoo xam ne bu yenn pompe yu ndaw ndawaan yi dugal ci kër yi bu ñu génneewaatee ci mbedd mi rek day da ngay obligé tegaat pompe bu mag pour drainer waat yóbbu ci exutoire bi ci ci ci ci tënk daal ci côté boobu mm-hmm. liggéey bu yaatoo yaatu la mm-hmm. eh, ndax bu bu bu weesoo nit ñi nga xam ne génn nañu seen i kër mm-hmm. ñu recaser leen ci ay bërëb yu fasantikoo eh, eh, quartier yi nga xam ne tamit daanaka dañ ko abandé abandonné mu nekk ay quartier déserte dafa am yeneen liggéey yu fa waraat ndax wàllu sécurité war na fa am na ñoo xam ne bañ fay jógee dañoo bàyyi seen kër noonu ñenn ñu mën a génnee lenn ci seen i matériel génnee nañ ko ñi nga xam ne mënuñ ko ay porte ak ay fenêtre ak ay lal ay yeneen ak yeneen dafay lay sécurité loolu tamit ñi ngi ci tàll loxo autorité locale yi ñu bàyyi ci xel ñi nga xam ne ñooy euh, ñooy wàllu sécurité fii euh, ñu ñu ci gën cee bàyyi xel ci yenn carte yi nga xam ne seeni borom génn nañu ñun ñi nga xam ne nag jot nañoo génn ba dem li ñuy gën a yàkkamti rek mooy ndox mi mën a génn bañ mën a jotaat seen i kër toujours sax loolu la ñuy wax même ñi nekk ci site de recasement yi li ñuy wax mooy mbaa suñ koñ ba yeneen koy bàyyi xel mbaa koñ ba yeneen koy bàyyi xel bu ndox ma dañee dañoo bëgg mën a delluwaat ci seen kër ngir xam nañ ne kat dëkk nekkum négandiku kenn ku nekk boo sañoon fa nga dëkk fa ngay nekk muy liggéey yu rëy rëy yoo xam ne commission technique mi ci dox jéego yu am solo liggéey boobu yaatu boobu nag day tax commission technique toujours mi ngi wéy di soxla ay pompe toujours mi ngi wéy di soxla ay tiwo tiwo flexible tiwo anaconda parce que léeg-léeg nga dem ci distance yoo xam ne day nekk 3 kilomètres wala 4 kilomètres war a jëlee ndox mi fii jàllale ko feneen am na ci yenn point yoo xam ne sax malheureusement da ngay xool ba sonn doo xalaat lu dul indi fa camion hydrocureur tamit bu bëggee déplacer yenn volume d'eau yi dafay trop ndax euh, dal nañu ci benn zone ñu yóbbu fa camion hydrocureur yu bari ñu sangu ko wante bu ñu paree impact bu bariwul ñu ne kon foofu lii baax mooy nañ fa teg solution pompage donte distance bi xaw na gudd waaye mën naa nekk parce que ñoo ngi ci ay ay ay technicien kuréelug junnatun liman nazamahu gannaaw bi ko cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général des mourides taxawalee dañ ko daal di nos ci anam yu mucc ayib benn ci bànqaas yooyu di commission finance ñuy amal liggéey bu am solo Euh, projet DIR itam ni ngeen ko xamee lépp luy dugg commencé ci li nga xam ne dafa jiitu woon comité bi di taxaw ci ci nga xam ne mooy participation wu bi di 200 millions euh, foofu lañ tàmbalee ndax loolu moo jiitu commission bi ak lu ko fa fekk ba fi mu ne nii euh, ñu ngi ko généré di gérer compte bancaire yi di xam itam lépp lu fa dugg ci waxtu wam fa dugg ak kan moo ko fa dugal ci noonu itam lañu amee ay monnaie transfert d'argent yooyu yëpp itam dañ koy gérer euh, waxtu wu ne ñu xam lan moo fa tàbbi luñ ciy dekkee décaissé itam ci anam gi ñu koy décaissé mooy euh, expression de besoin bu am mooy commission bu soxla lu jëm ci liggéey bi commencé par commission technique commission communication commission bu mën a doon dangay bind li nga soxla woo président commission ba signé ko mu dem ci commission administration bi nga xam ne comité bi moo ko moo ko taxawal buñ ko saytoo ba xool ko ba gis ne lu war a nekk la ci liggéey bi la jëm ñoom yóbbu ko jox ko commité de consultation bi nga xam ne wala wala commité bi te mooy responsable yi niki sëñ sëñ Youssou Diop mu consulter sañ Abdou Lahad Ka ak sëñ Laat Abibu mi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi suñ gisee ne lu mënu la ñu valider ñoom buñ ko valider ba pare nag kayit boobu la ñuy indi finance buñ ko indee ñu téye kayit bi nun xam ne lii mënu may ndigalul ñu dekee se wala ñu ñu joxe lu mu mën a doon bind suñu bon nag yóbbu ko comptabilité mu enregistré ko bu ko defee bu ñëwee bon boobu ñu livré ko ak la ñuy joxe kañ koy jox moo xam nature la moo xam xaalis la moo xam lu mu ci mën moo xam ne daal liggéey bi moom liggéey bu yaatu la donte am na efficacité alhamdulilah ndax yàlla dimbale ñu ci fàgguteefu sëriñ bi ñu am barab bu yaatu boo xam ne commission yëpp fa la ñuy liggéey fa la bureau yëpp nekk fa la matériel bi nekk ci ndimbalul sëriñ bi tax na procédure bi moom yaatu na ndax dañ ciy bëgg transparence ci lépp tegu ci aw yoon waaye du metti ndax da ngay ñëw ci table ji wax ak ki nga war a waxal indil ko kayit mu def ci lam ci war a def bu dee lu muy wiise mu wiise ko nga jële ko fa dem ci taabal jee wax ak ka nga war a waxal bala ngaa jógee génn saal bi li nga war a sottal lépp sotti waaye lu mu ci mën a doon daal dana tegu ci yoon ndax dañuy bëgg bu ñu paree ñu rendre compte ci anam gu mu gën a rafete waaye loolu nag dafa ànd ak euh, vigilance bu bu mat a mat benn ngi ci bànqaas yi seq séq junnatun liman nazamahu di commission administrative ñoom itam seenub liggéey yaatu lool commission administrative bi nag li soloom daanaka interface la ci kuréel gi ndax moom mooy superviser di coordonner un peu l'essentiel des commissions mais di leen jàppale it ci uti de gestion yi maanaam lépp li nga xam ne jumtuwaay la bu ñuy liggéey foofu lañ koy tërale foofu lañ koy taxawale waaye di saytu nag doxalin yi maanaam koppar yi war a génn matériel bi ak yooyu yëpp am ci pàcc bu am solo ba nga xam ne dañ ko dénk ci wàllu validation muy yenn niveau yi yi nga xam ne ni àggul fenn fi bu demee nag ba àgg ci yenn yenn proportion yi loolu dañ koy bàyyi kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn waaye nag ci biir commission bi tamit taxawal nañ ci benn bureau de contrôle de vérification et de supervision boo nga xam ne day saytu maanaam lépp li appel de fonds wala matériel buy génn ñu mën a tracer ko ba xam dëgg-dëgg ndax fañ ko jëma fañ ko wax ni fa la ñu jëmale fa la jëm la ca jiitu nag bu ñu ñëwee mooy def briefing parce que liggéey bu ko seexee bu ngeen war ngeen euh, def briefing mën a wax ci ne fan la jëm ak lan mooy jubluwaayam ci bi bu ñu ko defee ba pare commission yi ku ci ne day dem ci euh, lañ ko dénk nekk ca ñun nag mm, toute la journée ñoo ngi kenn continuer ci lépp lu jëm ci wàllu euh, validation ak saytu ak supervision bi ñu dénk loolu moom du taxaw à tout moment dañ koy def.

mooy ñu bu defee débrief foofu ba def euh, le point ñu fexe nag euh, perspective yi maanaam li li ñu war a dëgmal ñu mën ko fa wax euh, ku ci ne joxe ci sa observation ñu koy saytu saytu ko donc loolu daal daanaka danañu jëlal bu ñu xëyee 9h ba yenn saa yi 23h lañuy la ñuy pare. junnatun liman nazamahu ci fàttali kuréel la gu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides joxe ndigal. ngir ñu taxawu nag mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ñeel mbënd mile gannaaw bañ ko taxawalee ñuy amal liggéey bu am solo lu ëpp ñaaru ay bés fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloo ak jumaa ji foofu la ñuy joxante dox daje ngir nos liggéey bi ku nekk ci ñoom di def sab liggéey boole ci ak xam-xam ak yéene donte liggéey bi sori na lool waaye taxawut mu jeex benn yoon ci anam yooyu sax tax na ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi duñ dañ mukk di soññ mboolem julliti ak taalibe yi ngir ñu wéy di tàbbal seen loxo waaye di fësal seen yéene ba lii cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëgg ci dëkk bu tedd bii di Touba jëm ci taxaw ñi nga xam ne dañoo loru ci way mbënn mi mu mën koo amee nu ko we njort